CATCH tamit organisation boo xam te ni dafay former citoyen yi pour ñu mën a Euh, lutter contre inégalité sociale yi maanaam pour ñu mën a am lu wax justice sociale tey CAJUST dafa signé benn partenariat avec les organes de presse comme URAC Agitrex convention des jeunes reporters euh, Lumière Synergie développement publier ce que vous payez ñu ñëw cees nag former journalistes yi ñu fexe ba lépp lu ñuy wax ci affaire u séddale revenu yi nga xam ne euh, ressources naturelles yi mi ngi koy jur ñu fexe ba former leen ñu xam lan moo lan la suuf si montant wala lan lan lan moo war a dellusiwaat ci askan wi et également léegi li ñuy wax transition énergétique parce que gis nañ ne tey Sénégal soo ko xoolee ak yeneen pays africains yi tàngaay bi avancé maire yooyu yëpp euh, dafa dafa am ay conséquences. ci suñu nekkin loolu moo tax ñu ne tey jii nii dañuy former journalistes yi nekk Thiès sur question yooyu noonu également contexte électoral bi ñëw na te xam nañ ne candidat yi dañuy ñëw di def ay tournée ci région yi tey suñu permettre ba journalistes yi ñu mën a xam nan la ñuy partager ressources yi nekk ci secteur bi lan lan mooy transition énergétique bi lan mooy accord yi Sénégal euh, signé le pi si ak avec yeneen pays européens yi nañ permettre ba nañ am ay question pertinentes yoo xam te ni su politiciens yi ñëwee wala les candidats a la présidentielle nañ am les les messages clés am message yoo xam ni dinañ ko mën a poser question bi te loolu lépp dina am jeexintan ci dundu askan wi. waaw loolu duñ ko def carrément mais avec suñu partenaires yi comme convention bi mu ngi fii AGETREC mën nañoo xool yan programme yoo xam ne mën nañ leen appuyer xam ne ñoom puisque ay journalistes lañ dinañ mën a poser question yooyu noonu mais ñun puisque organisation société civile lañ suñu role dafay limité wu ci renforcer capacité journalistes yi wax leen ne lii mooy question pertinente yi ngeen mën a poser candidat yi ñoom ci seen à leur tour dem ci candidat yi poser leen question. opinion yooyu noonu ñun tamit mën nañ jël message yooyu noonu partager ko diffuser ko yooyu yëpp mais loolu mën nañ ko programme boo xam te ni mën nañ ko lal avec suñu partenaires yi nekk fii nii ñu mën a gën a travailler ci question yooyu noonu comme ça ñu mën a euh, jàkkaarloog euh, candidats yi mën leen poser les bon question par rapport ak euh, thématiques yi nii ñu doon wax léegi nii. taxawaay journaliste yi mooy que ne ñu am la bonne information wax naa ko léegi parce que bala ngaa xamle faw nga xam. donc looloo tax ñu fexe ba ñu ngi ñaan yëpp journalistes yi ñu gën a attentif daal gën a xam tey jii nii parce que deux thématiques yu am solo moom la ñuy jàng tey fii mooy partage revenu yi maanaam état bi ak entreprise yi xaalis bu mu war a jox communauté yi depuis 2009 pratiquement li mu si joxee bëriwul muy fonds d'appui au développement local ak fonds de péréquation bi montant yi état bi war a jox communauté yi te suñu experts yi xarañ nañ si nañ leen jox montant exact ñu fexe ba. képp kuy ñëw ëllëg nga fexe ba fonds yooyu yëpp nga jox ko communauté yi comme ça dina fexe ba seen bien formation éducation yooyu yëpp dañ fexe ba as askan yi mën cee gis seen bopp. ak tamit question tension énergétique boo xam te ne question d'actualité la tey tàngaay bi gisoo ñëpp ñu ngi koy dund te loolu lépp li ko waral mooy changement climatique bi te xam nañ ne exploitation pétrole gaz tamit bokk la ci facteur yi tax tey jii nii lii yëpp am. yooyu yëpp moo tax ñu bëgg a former journalistes yi ñu bëgg gën a am la bonne information ñu mën ko gën a partager communauté yi gën cee waxtaan ak les euh, candidats à la présidentielle. sant Kajus bi nga xam ne moo ñëw fii tey ci Thiès euh, pour tàggat ñi nga xam ne ñooy kuréelu journalistes yi muy convention des jeunes reporters AGITREP URAC ak yeneen acteurs yi nga xam ne ci société civile lañ bokk. Euh, pour tàggat ñu ci wàllu wi nga xam ne dafa jëm ci wàllu gàncax gi ci transition mais ci wàllu mine yi aussi pétrole ak gaz bi pour que euh, élection yi di ñëw ñu mun a am xam-xam bi nga xam ne dinañ mun a poser ay questions candidats yi parce que aussi élection présidentielle dafay baax aussi ñu xawal laal lépp lu nga xam ne day intéressé communauté yi euh, mais loolu nag pour nga def ko il faut nga am ci xam-xam moo tax kajus tey jël bës bi ne day jàppale kuréelu journalistes yi pour tàggal leen ba nga xam ne dinañ am jumtukaay pour mun a poser question yooyu ci euh, élection yi nga xam ne mu ngi waajal élection présidentielle waaw loolu moom je pense que problème la parce que euh, at yu bëri nit ñi ñu ngi ciy liggéey pour que loi bi nga xam ne mooy loi pour l' accès à l' information ñu mun ko voter mais ba léegi jàllagul je pense que loolu aussi benn jafe-jafe la boo xam ne kuréel yëpp war nañ ci ànd liggéey ko mais ginnaaw loolu aussi euh, xam nañ ne métier journaliste moom euh, am na toujours pexe pour am information mais surtout li am solo mooy am information bu wér te it joxe information bu wér loolu yaakaar naa ne bu amee rek parce que dañu toll si jamono boo xam ne xibaar yi dañ koy manipuler da ngay gis ñu joxe xibaar boo xam ne wérul moo tax dafay am solo ñuy saytu xibaar bi balaañ koo joxe recouper ko ba nga xam ne xibaar bu ñuy joxe ah dina mucc ayib loolu tamit dafay am solo. tàggat bi benn fan la mais comme ni ko directrice waxee li benn jéego la ci jéego yi ñëw parce que benn projet projet la boo xam ne xam na après élection yi dina am yeneen tàggat yoo xam dina gën a yaatu pour nit ñi journalistes yi véritablement mun a am xam-xam yu gën a yaatu ci domaine bi nga xam ne domaine bu am solo la. ñu euh, maanaam parce que xam nga euh, de plus en plus. violence électorale dafay bari euh, ñu bàyyi xel loolu beneen bi aussi mooy ñu moytu manipulation bi ak désinformation yi parce que dafa bari léegi euh, fexe daal ba nga xam ne li ñuy joxe en tout cas dina doon loo xam ne lu wér loo xam ne c'est sourcé vraiment loo xam ne aussi dañ ko recouper ba nga xam ne parce que il ne sert à rien ngay joxe information li am solo mooy joxe information bu wér waaw kon loolu je pense que am na waaw loolu je pense que réseaux sociaux wax nañ ko parce que mbedd la boo xam ne ñëpp fa daje mais journaliste bi aussi warul topp loolu euh, gis xibaar ci réseaux sociaux yi rek jël ko di ko euh, véhiculer je pense que war nga ko recouper pour xool est-ce lii nii wér na wala wérul je pense que loolu je pense que loolu moo ci pexe bi nga xam ne war nañ ko mën a bàyyi xel bu baax baax